des ci tabaski bi premier ministre amadu Ba comme ni koy defee ñëw na Sandiara ngir xool njaay mi naka la demee fii nag maire bi mu ngi daal di jël kàddu ngir wax ne kontaan neen bu baax a baax ci xar yi nu ñu ñëwee waaye bëgg neen ñu defal leen fi ab fooraay bu mag. ren moom dañu gis ne xar yi dafa yokku parce que contrairement à li ñu doon xalaat depuis 15 jours xar-xar yaa ngi ñëw. semaine passée bi ñu ko dénombré waa élevage ay mille xar la ñu nekkoon euh, semaine bi euh, tey ñu ngi nekk ci 5200 xar je pense que dans une semaine encore nañu recevoir ak yeneen 3000 en général dem ba 10 000 moutons euh, ci 200 000 yi nga xam ne mooy région Thiès mais loolu ci at d'une année à la donc euh, ñu mooy fexe ba sécurité doy avec la gendarmerie 24 heures sur euh, ñu ndox mi aussi doy lépp lépp mën a doy suñu principal problème mooy juste marché bi marché bi ça date de 40 ans nii la ma semel moom Samba Ndiobène Ka di daal di rafetlu mesure yi nga xamante ni jël nañ ko ngir mën a saytu njaay mi bu baax nan la mën a dexoy fii ci diwaanu Sandiara Porokhane. sant yàlla euh, sant yàlla mais sant état du Sénégal en ce sens que lépp loo xam ne état du Sénégal euh, jëloon na ko comme engagement ci wàllu sécurité ci wàllu subventionné aliment bétail bi mais aussi ci wàllu surtout indi ndox indi courant pour yombalal mi nga xam ne ñooy jaay loolu lépp fekk nañ ko fii ci terrain bi. acteur yi fi wax mooy président Fora yi mooy maire yi mooy ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekk kenn ku ne ci ñoom wane na li nga xam ne mooy wàllu sécurité moom lu am euh, daaw ñu ngi gis ne lu tollu ci juróom-ñaar fukki junne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ay xar moom la ñu daal di recensé ci yeneen at yi nga xam ne moo ci topp mu nekk juróom-benn fukki junne ak juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci atum daaw mi loolu nag ñu gis ne am na ci yokkute lu toll si junne ak juróom-benn téeméer ak fukk ak ñaar ci ay xar loolu nag tax na. ren gis nañ ne yokkute am na bu baax a baax ci xar yi nga xamante ni ñoo bàyyi ko fu nekk ñëw ci diwaanu Sandiara